askan wi ba jàmm ngeen yendoo ñun de moom la ñu fanaane lu def foxu nag lu ay di jàmbat ku yabu ni xalaas ah bisimilah yi jàmm yéen bi di laas xëy nag di ñu xamal ni ñu daal ma ne ku ni woon ma ne ko borom réew mi bëggul lëndëm nay leer waaye de ma ne ko loo ca mën a dégg daal moo di ku jëpp politique gi tamit bëgguñu lëndëm nay leer ni ki tey nag ko la ñu fas yéene daal siwal li nga xamante ni moo di liste officielle yi jëm nag ci législative 2017 yi di 30 juillet waaye loo ca mën a dégg moo di tey la bésub dëgg bi ndaxte nag ku yéene kaay bi di laas xëy na daal di koy fësal ba xam ca lay yam mu ni mi quotidien yi ñu lépp fi la taxawee publication des listes ngay teg ca wet ga ñu ni 9 juin di juróom-ñeenti fan ci weeru juin bi jour de vérité ak ma ni ko lan cacophonie wax ju sew nag dana ci judd ci coalition yi ndaxte dégg nañu daal ak la rumbalaat ci suuf bu sottee ñu ne am na liste yoo xamante ni jàll lim ba di 49 dana ca yëggam déet loo ca mën a dégg daal moo di coow dana bari de wax ju sew ji ci pir ci pir jeeg ko kasaw kasaw gi dana bari lool l'évidence yéen deet sérialiste am deet loo ca mën a dégg daal siiwal bi dana daal di am danañ ca xam ña nga xamante ni ñooy dem ca jongante ba ak ña nga xamante ni duñ ca dem waaye vote sanction yi nga xamante ni nam nañ ko en perspective ci Benno Bokk Yaakaar waaye doo ca dégg leneen de am na ñu nga xamante ni ñi ngi ci parti yi waaye fi mu toll nii liste ba la ñuy xaar mu daal di saaw rek ñu daal di jël nag ma ne ko seen i position ndaxte gis nañu ci biir ni am na lenn lu nga xamante ni nag de neexul leen ca waaye loo ca mën a dégg de l'observateur daal xëy na daal di ànd kan mu ni soxna ay dëmbooj waaye loo ca mën a déggit moom Aïda Mbodj moom présidente mouvement alliance nationale pour la démocratie Aïda Mbodj nee na coalition yi nga xamante ni moom lañ fi tëgg ñoom nag ay coalition arnaque lañu tëgg wëndeelu rek ma ne ko la ñu nekke ndub lañ da caa nekk déet man ngi koo taxaw Sénégal moom de ma ne ko proposé woon na ko deuxième place Aïda Mbodj mooy wax de commencé nañu di sulli lu ñu suuloon waaye loo ca mën a déggit daal am na leneen lu ca nekk mu di Abdoulaye Wade woon a ñëpp te woowul kan mu ne Aïda Mbodj ku yabu ne Aïda kon lan moo xew waaye Abdoulaye Wade ni ngi nànk politique gi la xew nag ba mbir mi daal di am liste d'investiture yi ca la jàll ak l'observateur ci xëtam mu njëkk ba tey mënuñu ah njiitu réew mi son excellence Macky Sall ñu ni de am na lu mu waxoon ni nag du investir ma ne ko ay ministre ak ma ne ko directeur généraux waaye gis nañ ci juróom ñaar yu nga xamante ni ku ca bëgg xam kan la ca tur wa nekk ca biir yëral yéenekaay bi ak ñaari DG yu nga xamante ni engagé nañu leen ñu fas yéene nag daal di jongante ci législative yi la turbine yéenekaay di ñu xamal ni ñu Pikine daal loo ca mën a dégg Sène mooy tête de liste ba di ñu xamal ni ñu mànkoo taxaw Sénégal opposition radicale waaye maître El Hadji Diouf am na leneen lu mu tal danañ ci dellu siwaat ak Bokar Samba Dièye waaye nag ko wàllu koppar yooyu ñuy tudd ñu ni fi mu toll nii gis nañ ci xaalis yoo xamante nii ah boo muy tuwul de am na luñ ca njott ni set naam setul lépp ci législative yi la jëm ak financement bi am setu sow si dibe di ñu xamal ni ñu coow li yomb na nañu daal di fuye i koppar ko mbir mu ca set ne kii la libération yéen kaay ni ñu loo ca mën a dégg daal ah élection législative 2017 yi am na lu nga xamante de kaw tefe nga ca biir ak lu ñuy wane de waaye nag armée maître Abdoulaye Wade bii Pape Diop ñu ni deuxième sur la liste nationale waaye tamit boo bëggee xam ñii di ay principaux responsables Mamadou Lamine Diallo maître Madické Niang ak Woré Sarr ak Decroix ñoom ñi nga xamante ni nag na ko nekk ñu ci liste nationale bi am déet loo ca mën a dégg daal yër ko ci biir am ca bi di maître Abdoulaye naan koppar yu nga xamante ni moom lay campagne ca lañ fa daal di jóge jàll ci zoom info mu ànd rek ma dikke ñaa dañu xamal ni ñu nag naka la sacrifié yéenekaay bi ci ak leeral yar ko ci biiram di xamle ni nag Karim Wade ak ko na mu échappé ci CREI lépp nag ko daal ñeel lan mu ni li nga xamante moo ñeel découverte yi ñu jël ci ay biens yu nga xamante gis nañ ko ca réewum Amérique mu mel ni maître ma dikke ñaa xamoon na ni gars yi ma ne ko lu jëm de la fin lañ ñu daal di fas yéene daal di am ex CIS ak ama ñoom nag fi mu toll nii la ñuy laaj one ko du série koppar dinañu fas yéene daal di door grève de la fin ci koor gi àllarba ji ñu jëm la quotidien yéene kay dellu di ñu xamal ni ñu keneen koo xamante ni nag am na bu ni wengam di bokkar Samba Dieye déggu leen fi woon juróom benn milliard yu ñu wax ni ah CBAO moo ne ko ñoom da leen ko daal di ameel xam leen na ni daal amelul lenn banque ba Abdoul Mbaye nag moom mooy ki ko wor yamu ca de jaay ay action am cay xamalu ko ca dara étape Sénégal nag dañ ko daal di bëgg a maître El Hadji la mu yëkkati woon ca kàddu yooyee xamle na ni daal ma ne ko dañ ko daal di bëgg a éliminer la solo yéene kaay ñëw ci zone économique et spéciale yi wax nag ko grande orientation yi nga xamante ni jot nañ ko ci daal di xàll mu daal di jëm nag ci naka la ñuy def ngir daal di ñoŋal les échos yéene kaay bi xëy daal di indi nag ab xibaar bu ñeel kan mu ni yaayub ulay maane moom mi nga xamante ni nag ci photo montage boobee lañ ko téye ak i ñoñam ndayam ji moom fi mu toll nii tëddatul nelaw ba yandoor ko na fu ko tolloo lool di doomam ji jigéen jooju rax ci dolli sàkku ci njiitu réew mi ak ko soxnaam di Marème Faye Sall ñu daal di koy jéggal moom doomam jooju les échos yéene kaay xëy daal di koy fësal naam nag nangu na ni ak njuumte la rek wane ko ci ndaw Vox Sport ñëw di ñu xamal ni ñu Thierno Seydi agent de joueur depuis 2002 la bar bi gëj a kawe ndaxte nag jàpp na ni sélection bi mi ngi gën di wàcc stade yéene kaay ñëw ci Diouf Saw Jeeju ak ma ne ko kan mu ni xumma kan nag moom moo war a daal di conduire suñu attaque bi yéene kaay bi xëy na ci suñu làmb boobale jamono nag ñëw ci ëmma bombardier nee na prolongation bi nga xamante ni moom la ñu jëm nag nag ak saison bi ministre des sports ko daal di nangu loolee CNG nag ko toog fi mu toll nii di xaar Balla Gaye 2 nee nañ dinañu def dana def lu sut Yékini am tay seenam déet yéenekaay bi samp na caw laaj enquête yéenekaay dellu ñu ca béttanti di ñu xamal ni ñu ginnaaw ba fa jéyee ji amee bopp ba léegi mu mel ni nag mbir mi dem ak dikk bi ak ma ne ko wàllu koom gi dafa daal di taggatémbe ndaxte bëggatu askan wa fa yeewa bëggatu ñu daal di soobu ci ndox mi am nañu lu ñu ragal leneen loo xamante nii nag am na ca kërëcc nag ca ndox moomee noonu maye seen lay wuyoo ginnaaw ba nag ca la daal di mucc doom ja mu am njiitu réew mi son excellence moo ki lañ ko daal di dippee sant wa di nduur añu yéene ñëpp jàmm ndax li ñu war a wax a bari wékk ko kenn ngëp na ko ñëpp comp as lëf ci yéene kaay caa ngeen jëf